Biggie salaamaaleykum mbooloo bi ñu nuyu ku nekk ci turam ak santam di kontaan ci dalal bi ñuy jo dalal fii tey ci biir ay nitam kàddu yi nga xam ne dégg nañ ko fi muy ay kàddu yu rafet bu ñu nee nit baax na dañuy naan kan moo ko wax ñu ne mbokk yee ko wax nit koo xam ne danga nekk ci fi nga ne bansi si. boobu la bii. nit koo xam ne danga nekk ci réew mi di ci def lu baax di dimbali say mbokk di dimbali say dëkkandoo di dimbali xale yi nga xam ne dañuy tàggatu ci làmb ak yeneen sport kooku nit ku baax la koo xam ne day liggéey ci développement dëkkam jo dafa am lu bari lu ñu boole. bu njëkk bi mooy Sénégal ñoo ko bokk ñaareel bi mooy làmb ji mu bëgg ma bëgg ko ñeen ñëpp ñu bëgg ngeen ko waaye bi ci gën a am solo nag mooy tarixa Cheikh Ahmed Tidiane bi ñu bokk donc euh, mu nekk lu rëy rëy ci man voilà donc ñun bu ñu ñëwee di ko tudde drapo xeeb nañ sax drapo bi ñu ko tudde wax dëgg yàlla nee naa ko dinaa fi dinaa fi ñëwaat parce que drapeau bi balaa muy neex mu nekk ci biir ay mbokkam te fañ koy tëggee dafa sori nee naa ko dinaa fi ñëwaat bu saison bi ubbee ci lutte simple bi nga xam ne yàlla def na maa ci kaw ba wan ko nag man may kan fii ci fi mu dëkk ñu def lu doy waar pour ñu mën a egg ci li ñu soxla yàlla na yàlla def lépp lu muy wut yàlla defal ko lu raw njottam làmb ji nga xam ne rek ñu ngi si jëm boole euh, le tukulóor la booy tukulóor Baaba Maal ak booy siin ah, yàlla na def muy làmb jàmm ñu bëre ko ci jàmm xale yu am solo aussi nekk ci biir ñëwuñu tey mais bii mooy grand drapeau bi e que le meilleur la sportivité comme ni ko tubaab di waxee jeu nag moom mu ngi noonu dañ koy bàyyi ak yéen rek <laughs> yàlla yàlla defal ko jàmm yëkkati ko ba mu kawe kawe kawe voilà merci. waaw avant tout d'abord nag man ak Boy Sine yi dara ko bu góor ki la. billaay wala so daw dañuy raag raag ba tàkk soo dawul laa waxe de soo dawee nag boobu dañ ko fekk def lu gën a ñaaw waaw kii du ma moroomam wax ji moo fi nekk rek ñi dëpp ñi dëpp ci ginnaaw bi ko mam te xam am nga combat yow gis nga maa la ko pare ñàkk nga xam yow paa nga baax man maa ngi wax ak yow maa ngi wax nañu jëflante maa ngi wax nañu jëflante fii la billaahi wallaahi taalaa dem na duma man dem na duma man man doo dara yow man dem na duma boo si dem na duma man su la neexee mu dum la su mu dum la eh a wax nag booy a wax waaye ma

yow nan ngay def da ngay dóor wala da ngay da wala nooy def combat bi ñaata minutes la yem foofu foofu mooy affaire bi. bilaa ay kii su taxawee du am deux minutes. nooy def day raak ba tàkk laa wax. bare bi gàlloo si ginnaaw il faut ñu ñamante. ku na xam il faut ñu ñamante ñam staff kay. kon kon il faut moom raak. barke rasulaay du bu bañee raak bi nag. bu bañee raak bi. bañ a raak neex raak nangu raak. naqare raak. naqare raak ba dëggu wakkaal. waaw waaw Boy Sine. Boy Sine. Boy Sine. mais dañoo gis mu lay agressé. agression bi pour lan la. xanaa da ngeen a mës a am fu ngeen daje. mu am nu mu demee. mais agression bi pour lan la. waaw di wax ne onze billah bisimilah inna wali yàlla jërëjëf jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Saliou waaw di nuyu mbooloo mi ñëpp ku toog di nuyu sama gars ma àndal sama rakk jagaar mbay di nuyu sama ménager as père ah dinaa wax benn affaire boobu affaire nga am na mbër yoo xamante ni ah. boo bëri ñoom dañ lay ñàkk loo fay benn si parce que yenn lii muy def benn du respect ndax su ma ko ci toppee scientifique du àgg te mbër noobu la war na mën a taxaw wax ma taxaw wax di jox ndox la bu ñu paree ku ne dem li nga li muy def nii il faut tapet la. camarade dama bëgg ngeen jël li ngeen li may wax barki Serigne Saliou Mbacke bi ma yaakaar doomu ko dul Serigne Saliou kii bu ñu tegoon paquet musique suñu diggante man ak moom ku daan jël benn lekk dinaa lekk lépp ba mu jeex te du lekk. mais foo ko teg. bokkuñu sax man ak moom. xanaa du mbër. gis nga kii xam nga taw du wax may wax. parce que benn déggu olof te booy wax da ngay wax ku dégg olof dama ko waxoon signature paat signature bi paat dama ko ko wax dama ko ne l'arme le plus c'est le silence booy wax da ngay wax ku dégg olof benn booy wax da ngay wax koo xamante ni dafa nite ki li muy def nii day forcé loolu moom sax ñëw wax tey mais signature bi ku nekk dafa toog waxal wax mais moom nee na dafa bëgg raag yow dama koy su xeexee ma duma ko su bëree ma daan ko barki Serigne Saliou xam nga li mu. père su kaamin tege fi kaamin waat ko. billaahi wallaahi tallaahi pare naa pare naa ku teg sama tànk su dalee ginnaaw sama seen lu mu yoroon foofu na ma dagg billaahi wallaahi tallaahi boo si ma du ko delloo ginnaaw. loo arrière. barki Seydina da ngay yow ma dem la duma ñi lay ci boppam xam na lool waaye am nga combat bu rëy a rëy su la neexee raak nakaree raak yoo xam nga loolu sax so su ma ak yow barki Alxuraan karim bu ñu nee ci biir ci biir gëmoo bi ñu sama suñu tàkk ku dellu ginnaaw nga xam billaahi wala du gor. waa ñëwal li bis dee doyoo guddoo waa yow booy yow booy yow man booy lijjantu du la sax billaahi wallaahi lijjantu ma la booy sin yow waay eh yow ñi la dàkk bare ñi la dàkk bare dañ la sës ah taxu yëngal yëngali moo man billaahi wallaahi ñi la

combat bu neex lay doon. waaw lu ngeen di wax ci promoteur bi tëgg combat bi muy Jax ak ki nga ngeen bi muy Zotik. bu suñu waa dina taxaw te kenn du ko wax day taxaw force. waa lu ngeen di wax ci zoo technique ak ki nga xam ne moo tëgg drapeau bi ak ki nga xam ni mooy promoteur bi di Jax production. waaw Jax dañ koy gërëm sama garant la. sama Jax dañ koy gërëm sama garant la muy garant bu baax. waaw di ko ñaanal fi promoteur yi mag yi toll mu weesu fa di ñaanal zoo ku ma naw la daf ma neex ndax xam nga am na fula am na fayda waaw di ko ñaanal lépp lu mbëbët ren yàlla na raw déwén incha allah. mais combat bi ci ñaata minutes lay toll yàgg sa waay. li wax combat bi du neen du ma reculer deux minutes xam kon combat bi du yàgg. wax la am ci làmb ji wax billahi wallahi yow yow yow ñaata seconde nga wax. sama sama combat yëpp. yow ñaata seconde. maa dogoo billaahi wala su taxawee. dix secondes du am. man nag man a ah, kii. yow ñaata combat nga def. man man combat bi bii mooy si premier combat. bii ah il faut faire yow ah Bouy Sine. yow bii mooy si premier combat. bii du premier combat am de. c'est que ça ñi mu daan ñoom kenn xamu leen. mais nekkul mi ngi soog man bii mooy sama dixième combat. te patron dama ko daan météo xam na ko baax ñoo bokk benn écurie bi muy bëre météo moo ko indi. moom ma seetaan combat métro indi ko kooku dama ko duma daan ko moom nag bëri na ay combat dégg naa bëri na six combat mais peut-être ñi mu bëreel kenn xamu leen quoi moo tax siiwuñu siiwuñu. yow nee na ñi nga bëreel kenn siiwu ci. am nga nit. yow yaa ngi door am premier combat. ci danger nga ne loolu la wax de nee na da nekk ci danger. kii kii Mbacke Faye moo ko sës Mbacke Faye man dem ko daan ñaari del ci benn bés. kon bii du sa premier combat. kon kii. dama wala mbapat la. man damaa xam rek gars yi dañ maa jox kon damaa bu ñu jox. jox ma xale. ah kii du xale moom. kii kii. kii kii la. paa ko bu baax. Eh, mais xool ko xool ko. non xool ko xool ko kii du paa de. amu tam wax amu tam wax dama xam man ku ma wax combat bi rek day wax kii kii yàgg naa ko kii bu mu boobu juddu woo. Ah. sama gars yi man jëruñ jëru am na pas yaa man jëru ñu déplacé ñun ñu taw foofu rek ñu ngi jëndee kii quoi. jërëjëf mbokk yi kon nga yóbbu leen rek tubaarkàlla ñu jël kàddu gi nag jox ko ki nga xam ni tubaarkàlla mooy promoteur bi. waaw wooteel. bon bi jël micro yi micro yi daal di. waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay fat so Allah jabi yangum da ngay def ndànk nag jokk sa Allah jabi eh, seydi bilal mo hal am yum bim lima bat waaje ana bata susa on peut respect way sa wela ayena mi lima lima mi wawma dum eh. far force ma wi ma am bon wotel gaay wotel mi nodda bandiraɓe fof biyo mbime Casamance fulɓe ful fulɓe jaloore e fuuta tooro min mi ñaaguima junggam mi ñaagui on mbaɗen kam duwa e combat hakkude moustapha ndiaye kadi inchallah so allah jaaɓi yakarere kadi bandira fof mi noddiɓe lo 19 inchallahu rabbi combat o min kadi jimmiren no wayano woto dar change han ah? ha ɓatti woto change ma ngi sandana promoteur ɓe ma bu baax a baax waaw ak jo borom drapeau bi borom sama sama drapeau ba barke Serigne non <laughs> maa lay gërëm bu baax a baax ko demee lu des wa tamit sama gars ni jox ci combat bi yëpp Ousmane Ousmane Ili Sare Ousseyni Diawara eh, wonde euh, Thierno eh, Mara eh, wonde euh, Zil Diawara tokaram tokaram ko palamu spécial e wonde Ngomen usmaili saren kam fof mi woppaniɓe kala biyowo mbimi kañum jeeyɗum inchallah e wonde kadi nanka tv fuuti men janggo kadi yooɓe ngar onon fof onon cabba allah jaaɓi combat enen jeeyi ɗum le 19 rabbi tokar noon vraiment a waɗi fof tokar a waɗi ngom kañum yo yetto ngom yo kadi e message woni bébé diene bébé diene bébé minen cukalel ngel yalte to woni ɗo vraiment hamin jiɗɗum kadi vraiment kadi ko lambu sohlimo ɓeɓɓe jeeni dokara mbiɗa ñaagui allah kadi mbiɗa ñaaguima mbiɗa ñaagui kadi mo gonduɗa balla min o yalta quoi kadi magi sante lépp jilo guiram ga ñi jegol nak asama ménagére boko fallu galat baye mbe waaw ñu ngi koy siyaare wér a wér waaw bàyyiwul kenn nag ñu ngi ko fàtte nga xam nit mooy motul booy sin nag bu dem seeraat la <laughs> neexee daan naqaree daan Ngari Fall booy siin nag bu dem seeraas la ñakee daanu nag ree daanu bis ba lan ca waajal waaw baba may lu nag mais baba kon mbokk yi dañuy jox booy siin su ko defee moom mu woote bàyyi ko mu bàyyi ko mu wax lu ko neex bu jour waa dina noppi force te kenn du ko noppiloo Pape Mass Pape la Pape def nii neex na trop mais bu jour ba war bi génne suñu diggante di nga xam ne kenn du la ba nga tegle mel ni kuy sàmmi nekkuñ ci àll bi waaw barki alxuraan dinaa la duma dinaa la daan barki Serigne Touba Mbacke waaw di woo sama mbokk séeréer di wax ni o foog le séeréer maa ngi sim naa na rek mi boosin maa ngi xooya xooya foog na jaxaaw boof jurbel tuuba bu foog le na rek mi boosin maa ngi ono dam dam no kombale ne ay ne euh, Moussa Omar Daaf ne Bab Mal ka fa lay trop billahi wallahi waaw di nuyu waa jurbel di mel ni père Diallo njaay maa ngi koy sant di ko gërëm sëñ Ahmad Sylla waaw di woo waa parcelle 1 ba 1006 waaw di woo ku ci mel ni am diko maa ngi koy woo suma papa busoo maa ngi koy woo di woo musaa si Sy kër Gueye di woo Amadou Ba waaw di woo ñëpp di woo suma mag Ndeye Ndiaye maa ngi koy woo bu baax baax suma mag suma lépp di woo waa Top Fitness Club bi yëpp di woo parti boo yëpp waaw di woo mafia bi yëpp respect waaye mbër xam nga waaw di woo ñëpp daal incha allah waaw yor force waaw kon mbokk yi joxante leen ba bis rek joxante leen ba ba bis ba. waaw na ñëw na ñëw. demal toog Baba Maal. Baw Maal. la ilaha illallah papa la sama lépp mun naa ne si digg réew laa tekkee sama ngeen ba may nekk ko ko ñaari combat doolu bàyyi jag si ma koy nuyu bu baax tëgg na ma tëgg na ma combat bëri naa ko journée xaw ñaari yoon tey mu dem ba wëri ma ba ñëw seet si ma ma delloo mu jugal mënoon na toog fële daal ne ah soo technique man booy mbër yi ngay xam ne mais xoolal li mu def li mu ni moom jàppee ko muy dara mais man lu laa ko jàppee nit bu nekkee si entreprise ba dañ ko war a ñëw delloo njukkal chaque jour moo fa nañ bàyyi ba ba dee ñu naan dee na nañ leen nañ leen ko rendre hommage non non non loolu amut la war a defal lépp kon tey may kontaan di nuyu Mor Mbaye promoteur moom sama grand mun naa ne ñi ma yar kër may fànn seen bopp di nuyu Sané di nuyu nag général Malika bi nga xamante ni moo jël drapeau chef de l'état bi sama mbër chaque jour lay wax parce que c'est fu nekk mu fekk fu ma nekk mu fekk ma foofu chaque jour maa ngi lay déggante soog a xalaat suñu bari di nuyu awa woon këram di nuyu ministère di nuyu ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar parce que góor lii la lii la am góor bu nekk rek jabaram da dooleel taxaw kon tey jii man damaa kontaan si ñoom parce que. di nuyu sama xarit yi ñoom Bougar Bougar maa ngi lay ziare maa ngi moom yàgg nañ ñoom di nuyu waa Africanité ñoom Singo commando di nuyu site internet yëpp maa ngi leen bu baax gaa yëpp maa ñoom yàgg nañ duñ tey depuis bi may wooyee wootee fi point de presse ba léegi site internet yi ñu ngi di nuyu fàttooy sama jigéen bi nga xamante ne ñàkk rok maa moom bi may bëree moo nekkoon géré woon sama partie nuyu waa Grand Yoff sama kër a ak am am na soirée maa ngi leen di ziar di nijaay la sama xarit la moom gis naa ko tey laa ko woo xam nga nijaay tey laa ko woo a wax dinaa ñëw kon tey jii wax di ko sama waay sama xarit la laay soirée maa ngi lay nuyu bu baax di waa Niakorop di nuyu waa Niakorop waa Kër Mbaye Fall waa jaxaay waa daaru Cuub waa Tiwaan Pël ñëpp maa ngi leen di ziar di leen woo si bis bi di wax ni yow père maa yow dañoo yàgg sànq bi ngay wax ni la xaw naa ree yow yow yàgg yow maa yow amul fu <laughs> jaar mais assure yow xamante nañ bu baax maa moom ndeysaan dañ doon jékki-jékki sax présentation ñu xaw a laale lu nekk la may wax nag moom moom mu njëkk wax na ma soo bàyyi bëre damaa bëree esaat daan boobu journée tey tey bi doon amaa bële si rek ma ma daf ne ma bàyyi bëree ma ne ko père yow encouragé wu ma nga ne ma ma bàyyi bëree dafa business daf ma yàgg wax loolu kon tey ah boo naa ne dafa tardé moom waroon na ko bis bi di sama waa agence immobilier macha allah service. jigéen ñaa ngi toog sama collègue Babou Ndiaye ñoom Ndiaye ñoom Babou Ndiaye ñoom ñëpp Assane sama mag Baara sama mag Babou Diouf mbër am na combat ñoom ñëpp maa leen di ziar baax ne nag daam lu tuuti rek lu may tëjee wax ji jarul muy bëri mën naa guddi di euh, di nuyu mbër yi ni ñoom ñooy bëri grand combat bi muy muy euh, sax Baba Ma ak Boy parce que tey jii mën naa ne bu ma toogee fii rek yéen xool seen bopp ëllëg war ngeen mën fii. waaw ëllëg war ngeen mën fii mbër gis leen nii mbëri rek chaque jour moo ko gars yi naan mbëri dañoo dof man leen bàyyi leen ñu féetewoo dof yi dof ñooy tax xale yu baax yi dof ñooy dawal si kàttan yi ñoo yóbbu seen yaay màgg yaa ngi dégg ñoo yóbbu seen yaay màgg ba pare ba pare def social yaa ngi ba pare doom yi ñooy social si dëkk bi yaa ngi dégg dimbali doomu aadama yi tabax kër yi rafet def ci kilim toog te di nelaw kon bàyyi la ñu ñu féetewoo doom yi bu leen mës a nekk nit nekk leen nelaw waaw doomu baax doog moom day may jàpp leen kon tey jii da gëm seen bopp chaque jour loolu laa koy wax boo yi mbëri dañoo war a gëm seen bopp am na ay jamono damaa nekkoon fii di sotteeku suuf di mbëkk sàmm yooyu mais loolu jaar jaar rek koo si gis am na lu mu bëgg teral ay waajuram la bëgg li ngeen di def nii dama leen ci encouragé di leen wax di leen drapeau bi boo leen ko jëlee foo leen taxaw la drapeau zoo technique bi ñu la gaynde la benn si man ah, ah, laa njëkkee saret laa njëkkee bi ma nekkee saret ba mu yàgg ma bàyyi saret bi dem def maçon ah, maçon bi doxul ma bàyyi maçon bi dem def garde rapproché garde rapproché bi doxul ma ne man tey maa dem def dem defi kii nu mu tuddati euh, waaw ma dem nekk fële garde rapproché di garde si kii nu mu tuddati taala taala tur taala bi nga xam ne mu si moom laa nekkoon. waaw def naa ko maçon Serigne Ndiaye bi tabaxal naa ko bâtiment boobu la li ma leen samay métier da nga naan jiw technique mooy loolu métier yi mu jaar bëri ah, lépp ngir bëgg am dara kon tey jii lépp lu am da koy sant yàlla gëm seen bopp respecté entraînement yi teg ko ci yoon parce que mbër nekk na la sport bu noble visa États-Unis foo bëgg dem passeport nga am ko diplomate di tukki kon respecté leen di leen ñaanal jàmm di wax ni combat yàlla na leen ci yàlla defal jàmm ngeen bëri ko si jàmm que le meilleur gagne ku ñëw rek gëm sa bopp na tey jii damaa war a daan yàlla dina la may na li fi am ni yëpp nag neex na parce que mbër ak signature nag ñoo ànd ah, mbër ak signature ñoo ànd signature mais surtout làmb jëg bëri moo fa nekk mais xam na egg si kaw wallaahi dégg nga ba ngeen xam ne taxaw naa leen parce que waa di si woote ñaa borom Kër Moussa di wax ne drapeau jour technique ana drapeau bi li ma drapeau bi xam na ne drapeau bu mel nii moom buñ la ko xam nga ni dara fay ko waaw dara fay ko te di waajal suñu làmb jëf incha allah waaw merci merci merci merci waa di jox gars yëpp rendez-vous le 19 di wax ne ñoom ñoom dajee ak sama kër regroupement yi fa la añuy nekkee ndékk yi sax dañuy texee ndékk di xaar ñëpp def délégation ñoom def mobilisation bu rëy nag ànd ak ñoom Mara Thioub ànd ak promoteur yi Assane Diallo di suboo ñëpp nag maa ngi lay suboo képp nekk monsieur le maire Mor Sarr maa ngi lay woo di woo suma xarit di woo monsieur le ministre euh, Abdou Karim Sall di suba suñu waay ñoxo bay Diouf di woo ñoxo ñoxo bay Diouf ñu koy di woo kër Mbaye Fall yëpp daal di woo leen wax ne na gars yi ñu jàppale ñu dem feesal stade bi nuyuwaat tamit Mor Baye bu baax si tegaat général Malika Père Serigne Ndiaye jeex kontaan naa wax ne yàlla na yàlla def jàmm si internet yëpp maa ngi kontaan naa si yéen bu na yàlla def jàmm jërëjëf jërëjëf euh, internet yi xam ne tey euh, ñoo teew muy presse bi euh, di nuyu tamit ki waral bës bi mooy sunu xarit sunu soppee sunu frère Lamine ñu koy wax du zoo technique. dara jaale ñu tamit drapeau boo xam ne moom lañ ko tuddee ki nga xam ne tamit Jax production organisé bés bu rëy bi macha allah. parce que ku xool ñaari ndaaneen yi teew muy Baaba Maal ak Bour wax dëgg yàlla xam ne duñuy dundal làmb kon suñu amee tam mu delloo ñu drapeau bi dañ ciy am mbégte bu rëy waa di ci sant bu baax a baax di wax ne lii yëpp luy jëm ne làmb kanam la parce que li may wax rek Lamine dafa nekk koo xam ne nii tey produit làmb la mais bi mu demee ba bàyyi bëre taxul mu bàyyi làmb ji xale yëpp mu ngi leen di jàppale ci dooleem ci mën-mënam ci léppam kon gëm na làmb te nag mënoo wax développement nga génn ci lutte parce que stade tey ñi fay daan seen doole bu làmb ji tëjee ñu bëri dinañ am ay jafe-jafe yoo xam ne ci lañ yor seen dépense seen njaboot kon loolu noonu tey dañ ko war a gën a dooleel ndax euh, jeunesse bi ñi ci ëpp tey ci làmb ji lañuy yëngatu kon jar nañu gestu leen bu baax a baax kon Lamine ñu ngi lay félicité di félicité ñi fi teew ñëpp di leen wax ne bës bi sunu bës la ñu ngi di ñaan nag que le waaw ndam lu sedd guy